quelques jours transporteur waa Afrique dañoo yokk unilatéralement seen prix du transport mm-hmm. voilà to ministre bi ñoom waxoon na leen ne joxoon na leen avertissement mais malgré cela def nañ ko mm-hmm. léegi da ngay dugg sax ci euh, dans les tata daanaka ci xuloo ci xuloo lañ dëkk mm-hmm. parce que fa nga xam ne ticket cent franc nga woon dagg cent cinquante ngay dagg nangam sangam léegi yéen situation boobu noonu yoon ane ndax ngeen ko jàngatee yow en tant que njiitu Sénégal dafa nekk dëkk boo xam dañ leen war a teg ci yoon parce que mënoo nekk ci dëkk nekk ku nekk di def lu ko lu la neex mënul nekk prix du transport c'est fixé par décret du président de la République tant que décret amul changement de prix mënul am c'est aussi simple que sax ku la laaj lu mu la warta jox bañal oto ba bu la yóbboo police moo fay des parce que amul même benn autorisation yokk prix bi comprendre nga wax bi mm-hmm. Mm-hmm. c'est extrêmement important li may wax nii maanaam bu la kenn teg loo xam ne yoon tegaloo ko ku la mm-hmm. ko teg bañal du ut leen seen weccit ngeen dugg ngeen fay waa ji prix bi nga xam ne moom ngeen daan fay bu demee police moo fay des parce que respecté wul li nga xam ne mooy disposition réglementaire il faut que tam nit ñi tam mbéjum kanam borom a koy fajal boppam li nga xam ne mooy saax nga di ko laaj bu baax mm-hmm, mm-hmm. waaw d'accord mm-hmm. parce que sinon du sotti mais bu fekkee ne boo ñëwee fay waa ji ne la wàññiwul nga nga ne garaawul ah day kon ne en tout cas situation bi mu ngi empiré parce que même euh, les conducteurs de aftu ñoom nee nañ dañuy dem grève bu leen neexee parce que tamit ñoom nee nañ euh, patron yi ñoom seen bopp kese lañu fa nekkal ñoom gisuñ seen bopp même bu dee yokk nañu prix du transport bi ñoom. on n'a pas leen dara on n'a pas augmenté leur salaire. exactement donc situation boobu noonu yéen naka ngeen koy dundee ak. lan non ñun ñun jàpp nañ ne. Hmm. waa aftu yi. Hmm. li ñuy def. Hmm. teguñ ko ci yoon. ñoom suñ buggee yokk. dañuy demander autorisation. su état gisee ne war nañoo mun a yokk. état da leen di autoriser yokk. Mhm. parce que yokk ak wàññi. Mhm. état moo koy décider. Mhm. mais day fekk mu am ay débat yu métti. yoo xam ne ñun dañuy toog gars yi toog. ñu ne leen lii ngeen di wax tegu leen ko fenn génnee science génnee technique génne euh, économie taxaw wax leen ba. Euh, gañe leen. bu ko defee yokk du am. mais bu fekkee ne ñoom ils ont raison. bu boobaa yokk day am. mais buñ ko bu fekkee def nañ techniquement ba discuter ñoom techniquement ba wax ba nga xam ne yëpp c'est bañ conclure. pour yokk mun a am wala mm. pour wàññi mun a am décret président de la république mooy fixer prix mm. transport c'est très important